يا همة الشيخ أخبري لنا بهذا المعذري والتعاطفي بنظرة تأتي لنا بظفر maa ngi sant yàlla bu baax ci jotaay bu taaru bi ci jotaay bu sell bi ci jotaay bu koye bi di sant sang Barhamu Njaay di ko nuyu di ko gërëm ci taxawaay bi nga xam ne rafet na lool ci jotaay bi nga xam ne def na ko tey ci digg dakaar te jotaay bi kenn mooma ko lu mooy Cheikh Ibrahim radiallahu anhu kon nag lii sàkk la ci faydu bi sàkk la ci Cheikh Ibrahim radiallahu anhu ñun jàpp nañ la ndax dañu gis sa mbaax gis sa oyof gis bëgg gi nga bëgg mbokk gis itam sa laabiir waaye itam gis sa bëgg Maolana Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu dafa ñëw sama kër ñuy waxtaan ma am mu am benn baytu bu may jàng baytu Cheikh Ibrahim ma gis bi ma koy jàng ma gis moom nu muy yëngu bi ma tàmbalee baytu bi muy yëngu di yëngu di yëngu ba ni may daanele si laa ne nag kii nag ku bëgg Cheikh Ibrahim la si laa ne kii dëgg-dëgg mbëggeelu Cheikh Ibrahim moo fees ci xolam te loolu rekk lañuy rawante ak teggin loolu tax sangu Barhamu Ndiaye maa ngi lay gërëm maa ngi lay ndokkeel sa liggéey rafet na sa taxawaay rafet na di la ñaanal yàlla dëgëral sa taxawaay ci barke Cheikh Ibrahim radiallahu anhu bi mu ñëwee keroog kër ga wax naa ko ne ko ñun ñëpp Maolana Cheikh Ibrahim la liggéeyal comme ñun ñëpp Maolana Cheikh Ibrahim lañuy ñuy liggéeyal ñoo bokk luñ bëgg ñoo bokk luñ bañ way gëm yi dañoo wax ne laa nu fariqu bayna ahadin min rusulihi la ñu wax waaye ñun itam dañu wax ne ndax ñoom dañuy wax ne duñu tàqali kenn ci ay yónnentam waaye ñun tamit duñu tàqale kenn ci ay wëliyoom ci ay euh, ci ñi nga xam ne ni samp na leen ci kaw suuf ñu nekk ay xulafaawum bon pour wone ne lépp rek benn la lépp benn la moo tax maa ngi sant yàlla bu baax gis naa sa maxa ba ci man du lu tuuti ba bu mag a mag la waaye yoo tamit kenn du la wax sama maxa ba ci man yow xam nga ku baax te li gën a neex nekkul sax neex na ñu lay présenté di wax yaay kan waaye li dàq mooy sa liggéey présenté la te yow sa liggéey présenté na la looloo tax ñu ngi kontaan ci yow bu baax sa njàngale njàngale mu kawe la njàngale mu kawe kawe la te képp koo xam ne ci ron Cheikh Ibrahim nga taataane xam-xam munul def nenn nenn lu mooy rafet su fekkee ànd na ak bëgg Cheikh Ibrahim ndax bëgg Cheikh Ibrahim mooy valider lépp mooy tamponné lépp kon nag li ngay wax muy neex nit ñi loolu yëpp dafay wone sa mbëggeel ci Cheikh Ibrahim mi nga xam ne kenn du moom bàyyi rek kay bàyyi kenn du bàyyi moom rek mooy moom yonent yàlla Moussa alayhi salaam dafa jël yatam dóor ko géej gu ubbeeku moom yatam bi géej rek la ubbi waaye Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu moom bi mu dóoree yatam bi kiiraay la xotti kiiraay yi nekk diggante jaam bi jaam bi ak seen borom te kiiraay yooyu kiiraay yu rëy la ndax benn bu ma ci tuddee benn rek mooy àdduna li muy rëy rëy yëpp kiiraay la kon nag kiiraay réy la kon xam nga ne bon kenn moom lu tax ndax laa ilaha illallah moom mooy yetam bi maolaana cheikh ibrahim radiallahu anhu def na lu gën a yéeme lu moussa alayhi salaam def ndax moussa alayhi salaam bi mu sànnee yetam bi ay jaan la woon na waaye Maolana Cheikh Ibrahim bi nga xam ne laa ilaha illallah mooy yatam bi ba mu ko sànnee xaalam gi yëpp la woon kon nag kenn du Maolana Cheikh Ibrahim radiallahu anhu kenn du moom tey angale bi dafay yëkkati loxoom ne baay baay benn baay bi di baay zahir benn bi di baay baatin bu yëkkatee loxoom bi ne bàyyi ndax yàlla dafay wax lu bari ci làmmiñu jaam bi loo xam ne jaam bi xamu ko bu yëkkatee loxoom ne bàyyi loxo bi dana am juróomi baaraam baaraam bu ne am na pays bu mu taxee muy juróomi pays yi waaye itam bu yëkkatee loxoom ne bàyyi loolu mooy ne ci bàyyi nag li ñuy jaar pour mun a wax lépp lu dul yàlla au yàlla rek des